dinañu wax sénégalais yi fait chiffre date bu nañ loolu benn temps la am na yeneen ñaari temps yu ci tegu loo xam ne je ne pas vendre la mèche waaye lépp ci semaine yi rek la ci semaine yi rek moo ko waxee nag xam naa xam naa ni am na am na ñu dul nelaw tey <laughs> ndax xam nga man yàlla may na ma lu tuuti sama diggante gaay duma leen déglu du leen seetaan toppatoo ma lu ñuy def waaye defe naa suñu xëyee soo ba ngoon jot dégg naa sax samay ñàngal la ñuy wax léegi ma ne ah gars yi kon tiit nañu ñàngal soo ko ma leen dese <laughs> kon lépp dañ koy teg ci yoon ak ci temps parce que nag dañu xam suñu responsabilité bi dañu xam suñu responsabilité gis nga fii nii waxal ma kii mu ñëw ubbil ma bureau bi bureau bi ci gannaaw gis nga fii li ma bëgg a dalal xelu militant yi mooy kenn gënuñoo xam lan mooy projet bi ndax ñoo ko togg ñoo ko sumb ñoo ko bind kon kenn gënuñu koo xam muy benn ñaareel bi kenn gënuñoo xam le sens de notre engagement kenn lay yàq projet bi mun na jóge ci ñëpp ñëpp ba mu des ñun ma daral nit ñi ñu ànd ak tey ak dal ndax xam nañ fi ñu jëm leer na nañ te dinañ fa yegg bu soobee yàlla kon responsabilité bi ñu am ñun xam nañ ko te li ci gën a néew waaye moo ci li ci gën a foor en même temps mooy ay ndaw ay ndaw joxe nañ seen bakkan pour que Sénégal change dama xamul ndax nit ñi comprendre nañu sensu loolu su ma déggee ñu toog fii di wax ay waxu matériel ay waxu post ay waxu dama naan nit ñi est-ce que comprendre nañ ils n'ont pas compris man amul jour bu may xëy te sama xel du dem ci loolu amul jour bu ma tëdd guddi te sama xel newul ci loolu amut kon li ñuy def dimension bi mu nekk du dimension bu ñu xam ci politique dimension bi ñu xam ci politique fii Sénégal ñu newuñu ci dimension boobu président Diomaye chaque jour su dara amee wala ñu gis benn affaire affaire da koy naqari mm-hmm. ci yàq-yàq yu ñu yàq réew mi da koy naqari et chaque fois la même phrase la la may wax mu ne ma gis nga lii ñun mënuñu ko fàtte ça ñii ñan ñoo ci am 30 ans amul daanaka lan moo tax ñu dem c'était pour que le Sénégal change président Diomaye loolu la may chaque fois mu ne ma est-ce que xam nga ni ay nit dee nañu nit ñi dañoo fàtte ni ay nit dee nañu pour réew mi changer dañu fàtte loolu moo tax ñun mënuñu ne fii gis nga les avantages yi ànd ak pouvoir yàlla métim xam ne ni man gisuma ko parce que amul solo bu ñu tombé woon ci loolu rek on a trahi ces gosses te bu boobaa nag la ñuy rendre compte suñ borom ah parce que ban hommage la ñu mën a rendre xale yi mooy ñu ne ci cinq def nañ li ci Sénégal ci dix ans def nañ li ci Sénégal soppi coppite bi ñu doon wax ci Sénégal def nañ ko ba ñu gis ko c'est ça l'enjeu aujourd'hui te ci loolu la ñu nekk subaak ngoon guddeeg bëccëg moom il siège au gouvernement xam na li ñu wax te duñ ci am lu ñuy lam-lame El Malick Ndiaye bi il est ministre dans mon gouvernement bu ma xëyoon ñu ne ma jox nañ ko deux cent mille francs mu jël jour boobu il sera pas ministre dans bu ko jëlee midi midi et demi il ne sera plus ministre loolu amuñu ci luñ ciy sédd ak luñ ciy calculer ba tax la ñuy woo ñëpp mooy li ma démarré léegi liggéey baa ngi doog a door challenge bi dëgg mi ngi doog a commencé mu interpeller chacun d'entre nous yéen en tant que artiste ndax seen mission dafa jeex keroog bu ñu nee fal nañu président Bassirou Diomaye Faye ngeen dem aj seeni kooraane ñu xaar prochaine élection wala kenn ku ne ci yéen projet bi mu gëmoon ba tax mu tëju fenk li muy fenk wéy ko day ñëw ànd ak projet boobu accompagner ko kenn ku nekk nag ci domaine ba nga mëne loolu mooy questionnement bi il faut ñun ñëpp ñu nekk ci beneen niveau ci conception suñu relation ak la chose publique mais suñu conception suñu responsabilité ci projet bi kenn ku nekk lañ taxoon nga dugg ci gëm ko ba am loo ci def tey nga war a gën a takku nag ndax bu doxul suñu échec la ñun ñëpp ah dinañ ma ci tudd nañ ci tudd président Diomaye waaye dañ ne ne ah yow de yaa fi wéyoon tàgg gars yi ne suñ leen joxee réew mi gis nga fi mujj kenn ku ne suñu responsabilité la moo tax tey lañu war a gën a takku ci naka wax naa leen ni ay temps la euh, gars yi dañuy wax état de grace état de grâce c'est pour les faiblards ñun soxlawuñu état de grâce état de grace c'est pour les faiblards ñun ba ñuy nekk parti politique opposition amuñu état de grâce dañoo judd rek ñu daal suñu kaw ñun ñooy parti boo xam ne su doon xale la dafa judd rek dox jàngul toog jàngul raam parti bu dëgg dudd 2014 2015 ñu dal sa kaw 2016 ñu dàq la sa liggéey noonu noonu noonu ba fi mujj ñun soxlawuñu état de grâce ñuy wax ay état de grâce état de grâce ja va bientôt se terminer déedéet na bar kuy opposé wu rek génn ñun soxlawuñu état de grâce loolu mbirum mbirum tapet la <laughs> ñun xamuñu loolu ñun cooki la ñu xam daal le bon sens du terme nag duñu ñu tooñ kenn kenn mësuñoo gis ñu tooñ waaye kuñu tooñ fekkuñu fi loolu lañu xam te réew mi noonu lañ koy yore mooy ku bëgg a wu bu mënoon nga commencé sax balaa prestation de serment président Diomaye ndax ñoom seeni opposition yëngaluñu opposition saaga meeg egg eh, yu dem yëngaluñu opposition boo xam suba ba ngoon jot sa yaakaar yëpp mooy kañ la problème di am diggante Diomaye ak Sonko ñooñu yëngaluñu ñun dañuy tëdd nelaw de ces deux opposition boo xam ne ña ñay ñay tenoor yi kenn ñemewu cee génn wax waaye dangay dem fay nit ne ko jógal wax ñoo ñu nag ñooy les agneaux di sacrifice ndax ñi ñuy naan ñi ñuy fay naan leen jóg leen wax lañ leen xamee mooy xaste ak saaga ah nañu xaste nañu saaga et puis dama jàpp ni ñenn ñi dañoo dañoo <laughs> dañoo gëmagul nekkatu nekk ñoom nekkatuñu pouvoir ko topp ci nit di saaga di saaga di saaga mu muñ ba ñëw ñu jox ko doole nga ne damay saaga ah aywa te kuñ ci ne ñuuj nag doo gis gaa yi avocat sax doo ko gis gars yi mënuñoo xeex de ñii li ma ne la benn lacrymogène la gaa yi xaaj ñeent sànni leen ñu soj ñoom ñëpp mbir maa ngi nii nun amuñu problème na métti rek mais état de droit la ñu wax ku ñëw ne d'accord maag agriculture bi niñ ko doxalee wala napp gi wala càmm gi wala jàpp naa Ousmane Sonko avec des preuves jël na xaalisu réew mi c'est ton plein droit loolu amul benn problème mais xëy rek topp ci ay nit nekk ci seen der nekk seen vie privée dugg seen njaboot lu bon lu ne nga wax ko waxoon naa leen ko grand théâtre dégguñu am na ñu mos nañu continuer noonu rek loolu dina jeex ci réew mi de wala dem fay nit ne ko bindal ma El Malick laa bëgg nga xasal ma ko wala nga détruire ko loolu dina jeex ci réew mi parce que dafa dul yoon nañu waxante dëgg tey foo ñu comprendre yi nag bañ ko doon def mu yomb ci ñoom ndax ñoo yoroon lenge yi am ñu leen boot ne leen defal loolu soppiku na kenn du fi instrumentaliser kenn mais dinañu def politique opposé wu dans le respect mutuel loolu moom dina am débat d'idées ku ci wóolu sax xam-xam man je suis prêt à tenir des débats avec tout le monde débat sur les politiques publiques sur l'État sur nos ressources naturelles sur no finance publiques sur leneen ak leneen ko bëgg ñu débat loolu amul problème yenn yi moom dootul mun a am ci réew mi ba tax nag ñun soxlawuñu état de grâce ndax xam nañ lañ yor xam nañ fiñ ñu jëm tekk tekkaaral bii ngeen gisoon tekkiwul faiblesse tekkiwul dara ci étape yi di ñëw nag yu bari dina ci am